léegi li ngeen di wane mooy lii lii nii su ma taxawee woon ne ngeen koy mën a gis yëpp c'est un boo xam ne c'est plus de 4000 mètres carrés boo xam ne ñu ngi koy xëccoo fi mu nekk nii pour def fi hôtel pour jox ko ab naar ñoom ñoo terrassé fii gis nga courant bi wàcce nañ ko ci suuf fii ñun lañu ñu màggee fii mooy Cap Manuel Cap Manuel moo nekk ci kanam nele mais mais lii yëpp lii yëpp lu ñu morcelé la ba pare ci loo xam ni dinaa ko exploité won ko sénégalais te lii dara gënu ko nekk littoral léegi nag fële tabax nañ ko ba pare léegi taxawaay bi mooy fexe fii ñu bañ koo joxe fexe fii ñu bañ koo tabax parce que laata Macky Sall di fi jóge fii am na ñaar ñu ko doon xëccoo fii te joxe guñ ko ci xëccoo ba laa ko yëgee te dañ ko terrassé ba pare c'est environ quatre mille mètres carrés sës nii rëkk ci géej gi léegi nag fii ba Cap Manuel ba Anse Bernard dañ ko morcelé war ko joxe waat dañ ko morcelé war ko joxe waat donc lii la ñuy euh, mu mu mel comme fi ñu jóge ñu tabax fi ay immeuble yoo xam ni kenn du fi aw kenn du fi romb kenn du ko gis kenn du ko lijjanti tubaab yi ne fi ak borom teranga yi nekk ci front de mer bi ndànk foo xam ni kenn du ko xalaat kenn du leen fi fekk di ko déranger ñaari naar ñooy xëccoo fii pour tabax fi hôtel waaw sénégalais yi yëguñu sax toppatoowuñu fii xanaa ñuy napp nii ak yooyu ñooy xëccoo fii y a le plan de morcellement boo xam ni dinaa leen ko jox parce que sóoraale wu moo ni dinañ ñëw fii bi ñuy visiter aéroport mais ñu ngi plan de morcellement bi ak numéro titre foncier bi ay parcelles yu 1500 mètres 2000 mètres 2500 mètres carrés lañ ko def daam. waaw léegi leer na de toute façon ñun euh, on est en train de d' alerter euh, ñu ngi alerter pour que sénégalais yëpp yëg li nga xam ne moo nekk ci réew mi li nekk ci réew mi euh, vraiment sénégalais dañ ko war a xam. parce que encore une fois euh, dañu bëgg réew mi li fi nekk ci ay njombe ak i tappale mu jeex te lii wax dëgg yàlla lii ku ko gis xam ni euh, zone bu bakkane la c'est vrai mais fii bu ñu fi yëkkatee immeuble dina nekk lu doy waar du wuute nag ak li nga xam ne moom moo am depuis ñu commencé visite bi ak yi nga xam si yegguñu fa parce que bëri na foo xam ne yegguñu fa njombe yi bëri na sur tout le littoral littoral bi moom lañ gën a song ñoom borom alal yi parce que ñoom dañoo jàpp ni fii nga xam ni fii la péex bi nekk dend géej gi ñoom ak seen njaboot rek ñoo fa a dëkk fi lañ def seeni otel yu bakkane fi lañ def seen i immeuble yu bakkane di loué fi lañ def seen kër yu bakkane parce que ñoom dañoo jàpp ne ñoom rek ñoom ñooy ay sénégalais ñu bokk ci ay sénégalais yu nekk fii nag ak yoo xam dañoo lënkaloo ak ay étranger loolu ci nguur yi fi jaar yëpp moo fi am effectivement sous Macky Sall ci la euh, boulimi foncière bi gën a takkarnaase maintenant nag ñun li ñu gëm mooy Euh, lii lépp day jeex euh, lépp loo xam ne teg nañ ko fii loo xam ne jaarul yoon danañ ko fi euh, danañ xeex ba mu jóge fi parce que lii quand même mënul continuer c'est-à-dire que jël 4000 mètres carrés comme ça jox ko benn nit boo xam si demalul fenn Sénégalais yi mu war a tiim suñu géej gi noonu def hôtel pied dans l'eau wala des immeubles pied dans l'eau loolu quand même ce n'est pas acceptable kon nag loolu moo tax ñu ngi alerté di wax ne depuis ce matin ñi ngi wone li nga xam ne moom moo nekk ci terrain bi te duñu arrêté parce que lépp luñ ci wax dañoo yore ay këyit yu leer yoo xam ne ay nit ñu bëgg Sénégal ci niveau de responsabilité ba ñu nekk fexe nañ ba ban jot euh, information yi ak këyit yi mu laaj bu ko defee ñu alerte alors qu'il est temps parce que ci régime Macky Sall ñu ci bëri dañu ragaloon a wax ba ñu bëri dañ doon a nappoon ñu bëri dañu doon gérer seen carrière mais lool lépp incha allah ci kàttanu yàlla dinañ ko leeral parce que mi ngi jeex parce que léegi nag ñoom ñëpp gis nañ ni effectivement li nga xam ni moom lañ doon euh, doon doon waajal euh, mi ngi nii kon nag lii bokk na ci sites yi nga xam ni bëgg nañ Sénégal euh, wax dëgg yàlla ñu delloog ko bu ko defee tappale yi mën a jeex donc loolu lañ bëggoon a dolli si loolu di wax ne nag quand même ñun on restera vigilant am na loo xam ne duñ ko nangu c'est-à-dire lii mënul continuer quoi c'est inacceptable ce qui est en de se passer dans ce pays lii munul continuer léegi nag la balle est le camp des des nouvelles lii on n'acceptera pas que ñu koy délivrer qui que ce soit pour que mu fiy tabax benn immeuble am loolu mënul nekk loolu mënul nekk on l'acceptera pas kon nag euh, vraiment nañu bu ñu ko waree aménager ñu aménager ko avec des espaces publics bu ko defee sénégalais yi bu ñu bëggee féexlu ak seenu njaboot. ñu mën a ñëw fii féexlu fi ñu def fi ay place publiques yu rafet yoo xam ni vraiment sénégalais yi daañu mën toog ba ngoonee a ah, nga am envie doxantu yaak sa njaboot nga ñëw fii toog fii. bu ko defee ñu aménager ko ba mu rafet bu ko defee boo ñëwee di nga am envie ñëw visiter ah, loolu sax day dooleel vraiment li tax étranger yi wala même le tourisme local bi ñu bëgg a mu mën a développer wu parce que sénégalais yi amatuñ sax espace bu ñu noyyee loolu nag mun a continuer mais je pense que ça vraiment euh, képp koo gis di nga xam ni euh, euh, Sénégal rek lañ mën a xalaate lu mel nii ñu koy jox ay ay ay nit ñu ciy dëkk mais waxatuma la sax ñu koy jox ay ay ay jël ay doxandem di leen jox sunu place yi gën a bakkan ci dëkk bi ñu fay dëkk mais au moment où di ñu di ñu di di xool les autres sénégalais avec condescendance euh, avec beaucoup d'arrogance di wane na ñoom ay sénégalais ay nit la ñu wuuteeg euh, sénégalais yi wala ay sénégalais yu nekk seen moroomu sénégalais leen wan ne yéen man ak yéen yamu leen mu yam man ak yéen yamuñu parce que ñun euh, ñun ay ñun nous sommes les sénégalais d'en haut et vous vous êtes les sénégalais d'en bas kooku moom c'est pas acceptable te dinañ ci xeex lu ñu mën. kon encore une fois loolu mooy sunu le sens de notre combat nous allons continuer le combat def veille bi ñu ci war a def pour que lépp jaar yoon pour que li ñëpp bokk ñëpp jot ci voilà merci. aywa nekk na jël sa

waaw cadre bu ñu jegee la ñu mën a gis lii lii assez avoir assez euh, il faut avoir assez de ressources physiques hein. ah, ah, ah non non gars man man zonam xaw ma xaw ma booy. na ko nga lañ jeexal na tag awaag yi maa xam jeexal na bu man xam man xam nga ne man du jeexal waaye man de xaw ma fu jeexal jeexalee man nu may def man nu may def ngeen bàyyi di ma wile pande si réew mi ah est-ce que doon moom xam ngeen di fi depuis théâtre Billy Boy laa fi gëjëx théâtre Billy Boy si yéen daan dugg mu <laughs> ngi noonu ah bu baax a baax sama mbokk Sénégal set yi di jox seen wàccuwaay gis ngeen Mbaye Kébé ñu ngi lay bëgg bu baax mais lii ah aba est doo zoom si bato bi bato bi xanaa moom bokk si accord de pêche yi ñu andi si sori waaye daal l'essentiel accord de pêche bi kontaan naa si. ah, ah. ñu ngi si bind LNG Poship Africa li day leer ni mi ngi noonu. ah.